gën a agriculture ba euh, ñu mëna participer bu baax ci li nga xamni mom moy souveraineté mu melni euh, bari na ci askan ñoo xamni jamono ji ñuy comprendre deug deug li nga xamni mom moy avancer rew wa mais c'est très important boko ko fofu kaolak moy comme modèle bi mo doon wax te cion ñaa nekk ci. Hum. ndaw ñi war nañu bay mais fofu ñu xam bay. parce que lo amul xam-xam dugg ci dañ ci dem aveuglément te xëy na nga ci bañ a am ay yu am solo donc buñu féké dañ leen tagat xamal leen importance bi mais tàggat bu ànd ak continuité muy encadrer leen ba euh jox len ay opportunités. Hum. ñu mën dem ci agriculture dem ci walu transformation commercialisation consommation parce que yooyu ñoo tegaloo mbay mënut a am doole mukk lu dul ni waa réew ma dañuy consommer la ñuy bay ci réew ma waa réew ma mënu ñu consommer la ñuy bay ci réew ma lu dafa am ñaar dafa am kii def transformation dafa am kii def commercialisation les kii def consommation aussi leur daf koy permettre mu indi alternative ci côté consommation donc il y fi une noonu la tegaloo agriculture transformation commercialisation consommation loolu nag ay filières yu bëree bëri yu ñu mën a tegale tàggat ci ndaw ñi ba nga xam ne kii bay bu bayee ba noppi dina gis ndaw lu nekk ci wetam jël ko transformé ko kooku bu transformé ba noppi. Mhm. du ni fan laa koy jaayee parce que dina gis ndaw lu nekk ci wetam jël le jaayi ko. Qui jaay itam du fan la kay parce que dina fekk ay consommateurs ils tok diko xaar pour lolu ñoo ñu mën ko consommer donc japp na ni politique bu am am solo la gouvernement bi ubbi ko mu a jox ndaw ñi yeneen opportunité ndaw ñi parce que ciow li ciow li Khalifa. liggey dong la sa bo nga sa bo nga nga japp ni li tabax ce mu ngi ci sa loxo ci sa mu ngi ci sa loxo li lay ci mu lii tax ñu reconnaître la ci biir société mu ngi sa loxo yow dong la des nag pour nga exploiter ko yow dong la des pour nga valoriser ko yow dong lay des pour nga contribuer ci appel bi état bi wootee pour ñi doole yenn secteurs ba Sénégal am souveraineté ci wàllu souveraineté alimentaire te loolu dañ dañ cee dañ ko soxla te ndaw ñu dong ñoo ko mën a pour loolu mën a antu jàpp naa ni kon xeetu rencontre yu mel noonu comme bi ñu def Kaolack non seulement dina dimbali ndaw ñi mais dina dimbali autorité yi te dina jox Sénégal benen opportunité bo xamni dañu egg ci li ñuy wax deug hmm. deug souveraineté te bu boobaa lépp ci loxey ndaw ñi lay bayé ko xalifa hmm. voilà justement mu ngi noonu aussi euh, benen benen point moy euh, Mboro darok